non xam nga en ce qui concerne le Niger il faut d'abord nga xam ne Niger dafa nekk suuf boo xam ne sur le plan géostratégique dafay jouer pour les états ak France waaw daf ci am maanaam Niger am na uranium am na fer am na bauxite ak yeneen i mbell yoo xamante ne ni France exclusivité bi presque moo ko am ak Chine waaw ci wàllu pétrole nga xool Niger léeg-léeg mu génnee doon na génne vingt mille barils jour année prochaine quatre vingt mille barils donc dina xaw a mel ni ak Sénégal aussi am na projet gazier boo xamante ne ni war a jóge Nigéria aw euh, Niger pour dem Alger après Alger mu dem Espagne beneen bi dem euh, Tunisie dem Italie pour nga xam ne mun contourner mhm. euh, le gaz russe kooku aussi beneen problème la donc am na benn imbroglio boo xamante ne ni buñ ko bu ñu góorgóorluwul bu ci bu bal tàkkee rek mën na am problème. Mhm. parce que bu boobaa euh, euh, Wagner soriwul. Russie aussi ñoom it euh, Wagner boo ko fayee ay mine d'or rek ak yooyu moom pare na pour pour gérer affaire bi. Mhm. te aussi mhm. dafay nekk loo xamante lu doy waar parce que gis nga guerre Syrie li ko indi c'est une guerre géostratégique du gaz moo moo indi suri nii ñu yàq ko vous voyez donc loolu aussi ñun en tant qu'Africain mm-hmm. war nañ ci gën a yeewu parce que les élites les nouvelles élites africaines mm-hmm. euh, fii ñi leen di di tubaab yi jàngee fa la ñuy jàngee mm-hmm. souvent sax ñoo leen raw gën leen comprendre gën leen xam donc ñun waruñu bàyyi toujours loolu de mais dafa am d'autres réalités yoo xamante ne ni souterraine yoo xam ne bokkul ak ñun citoyen lambda bi muy gis nii mm-hmm. parce que léeg mu am foo xam ne dañ la jàpp doo mën a rëcc par exemple euh, France naka lay nekk quatrième puissance maanaam ci en réserve door ci ci ci ci te France amul mine d'or fan la ko jëlee question vous donc ak yu bëree bare bare bëri yoo xam ne tey France ci Afrique la ko ji la ko amee te boo leen dégloo ak cynisme bi ñu yor naan ils ne veulent euh, de guerre ils sont pour le pacifisme ak loolu alors que ñoom ci suuf ñu ngi xam pour que CEDEAO attaqué. Mm-hmm. Ah, ñun dañuy déglu di xam sinoo ñu gën leen comprendre sax yenn situation yi. Mm-hmm. du dëgg léegi nag nos chefs d'État waruñu àgg ba foofu nañu yërëm la les populations africaines bu ñu xool parce que bés bu ñu attaqué le Niger. mooy na dañu bëgg a sauvegarder pérenniser les intérêts français sur le sol africain. Mmh. parce que le seul gagnant wala la gagnante c'est la France. Mmh. États-Unis dafa muus gis nga moom pour évaluer moom daf la ne am na changement de régime am na coup d'état am na lii léegi moom du wax coup d'état la. parce que bu ne voilà bu ko defee mu mën a négocier. bu mhm. waaye mhm. pourquoi pas ñun sëñ moom moo mën a wax loolu pour suñuy doom bu ñu bokkal der. am ci yërmande pour ses propres intérêts parce que moom it Africom euh, avant deux mille 2003 ba presque 2007 mi ngi manœuvrer pour am fi base militaire en Afrique. Mhm. parce que ci Stuttgart ñoom ñoo yor Africom. nit ñi bañ mais lan moo indi tey ñu Fran euh, Amérique gën fi am doole mooy euh, benn kii bu ñu tuddee ordre of chaos muy le des la la le désordre constructif. Mhm. mooy fexe créer terroristes yi ñu ñëw. ay Al-Qaïda ay. Euh, yu demee noonu pour mën a légitimer leur présence en Afrique mhm. noonu la ñuy jóge libi ñëw dugg biir Niger jaxase mhm. jaxase Mali euh, mhm. euh, kii ñëw foofu pour mën légi ak Guinée ñëw fii donc loolu il faut que ñu xam loolu feeg nag ñun yeewuwuñu lu dul toujours ñun ñoo ngi topp les réactions mooy ni ñun parewuñu pour pour dem te bu bal tàkkee du rey kenn ku dul africain te loolu ñun dañ ko war a bañ. c'est une responsabilité. donc moo tax nañu def le tout ak les présidents ñu ngi leen di ñaan sur ce plateau que ñu ñu ñu ñu delloo euh, euh, kii euh, seen xel xam ne am na plusieurs sanctions déjà 70 pour cent ci électricité bu waroon a dem ñaame demul te ak kii coupé na ko. Mhm, xanaa xam nga les sanctions économiques yi moo gën a. poser problème moo gën a moo gën sax waaw te te te problème dafay bari te te ñaan ñu ko yàlla daal vraiment.